asalaamualeykum wa rahmatullahi taala أيها الإخوة أحييكم باسم السيد الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية الذي استأذنته بالمجيء إلى هذه الحفلة واتفق معي بالمجيء إلى هذه الحفلة وقال لي أوصيك أن تحضر باسمي لأني لو تمكنت أن أحضر في أي حفلة تقام لقراءة القرآن axduru fiha xaduru hadihi alxarfa dama wax ne li murit baaxoo def bala ngay bala ngay def dara sàkku ndigal dama woo sëriñ sàkku ndigal ndax mën na maa teew ci jotaay bii mu ne ma mën nga cee teew baax te teewaaleel ma ci ndax sëriñ Tuubaa kat bu soñoom fu ñuy jànge alxuraan mu teew fa kon nag kat googu moom lay njëkka a wax ci njabootu sëriñ Tuubaa toftal ci kàddu sëriñ Mor Fati nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Anta borom gaawam te kàddoom moom sëriñ Mor Fati ak kàddu rakkam si Mbàkke Anta njabootu alay siñ tàkko mu jël ko teg ko ci loxol sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jili ak sëriñ Awo mi fi jóg seen kàddu yooyu buñ buñ mënee naa jot li kàddu sëriñ Abdul Xaadir euh, sëriñ Muntaxa jot loolu kàddu day mel ni kàddu yi yëpp dañ ciy dugg kon maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci jotaay bii ci turu sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa di leen ndokkeel di leen nuyu ci turu jataay bii ci jataay bii ci turu Serigne Abdou Khadre Serigne Djily di leen wax ne sëriñ Djily nee na ahlan wa sahlan lakum ardi Darou marhaban bikum fii ardi Darou Salam dëkk boo xam ne moom la Serigne Touba njëkk a am wàcce fi ci alquran loo xam ne kenn xamul num toll takk si Sayyidina Muhammad loo xam ne kenn xamul nu mu toll kon nag ginnaaw ginnaaw bi ñu ñëwee fekk nañu liñ doon tari ñu tari lu ci bari jàll dañoo mënta ñàkk ñëw rek ndax jataay bu mel nii kuy wax ne jullit nga te sa sa dëggu mu ni ñàkk teew rawatina ñi nga xam ne ñoo koy woote ba ci jigéen ñi soxna Maam Anta Dia sax sonn ngir bëgg teew si ci kon nu teew ci teewal njaboot gépp teewal njaboot gépp ñi nga xam ne ñoo ñooy yore comité d'organisation bi ñoom itam sonn ci lool ba tax na mënuñu woon a ñàkk a teew si seenu coonaatam xam naa ne yamale ko ci jataay bii rek comité d'organisation bi lépp lu xew Daaru Salaam danañ ko saytu ni ñu saytoo ndaje mii noo ngi leen koy seereel te di leen ñaanal suñu borom fayal leen boppam euh, kon ginnaaw dañ fee xëy tam jàng alquran saar wi sub ci alquran di suratul baqara ci ñaar téeméeri laayam yooyee euh, ak yi tegal euh, xëy na ñaar fukk ak juróom-benn wala eh, juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñaar téeméeri laay ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn sóoratul baqara loolu la moo sut ci alquran saar wi ci gën a gàtt di sóoratul kawsar ci ñetti laayaam yu ñetti laayaam yu gàtt yi te ëmb lu bari nga jaar ci jàll ba ba minal jinnati wan xam naa bi ngeen xëyee léegi wax ngeen ko fi kon nag damay seet man laaye ji gën a gàtt ci alquran te ëpp te ëpp lu mu ëmb muy yaasiin mooy aaya bi ëpp gën a gàtt ci alquran ma jël ko tëje ko donc yaasiin dafa mel ni alquran booy seet xol ba da dugg ci sortu yaasiin fekk ca biir biir sortu yaasiin ba tey xolub alquran kon nag la suñu borom liggéey ca xol ba ak lam ca fàggu man maa ngi koy ñaanal ci turu kilifa yi ma tudd mboolem ku fi teew yàlla la ci sëriñ suñu borom defal defar sa adduna defar sa àllaxira defar sa adduna defar sa àllaxira liggéey bii nag liggéey bu rëy rëy la ba xam ne sëriñ Abdoulaye Dia mi koy def ak ñi mu ko àndal ak njaboot gi day mel ni day mën nañ leen a delloo ci hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man raa minkum munkaran fal yuxayiru bi yadihi aw bi lisaanihi aw bi qalbihi bu a neexee aw bi maalihi ndax yadu eh, ku ci gis loo xam ne lii eh, lu munkar la muy loo xam ne lii day yàq lislaam te dara lu gën a mën a yàq lislaam lu aljahala aljahala wala wala ummiya amul waaw nit koo xam ne jàngul dara dara la nit koo xam ne kii musta dal ummiyu la ummiyu moom Seydina Muhammad rek la ji waaw kon nag ku jóg ngir xeex jahaala xeex ummiyu kooku li muy liggéey liggéey la bu dëppoo ak sunna si rasulullahi sallallahu alayhi dëppoo ak alquran yéen ñi ko teewe si na leen wóor ne benn tomb alquran mën naa defar àdduna ak alaxira kon nag ku fi teew rek yal na suñu borom defar sa àdduna defar sa àllaaxira defar sa àdduna defar sa àllaaxira sëriñ Tuubaa suñ Muntaxaa kàddu yi wallaahi moom ko wax jaarale ko ci làmmiñu suñ Moustapha Abdoul Akram mu woo ma léegi téléphone ne ma nang ma fi teew teewal ma fi teewaalal fi njaboot ñëpp kon nag mi ngi leen di li ngeen ci bëgg ngeen am ko بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجاه خادم الرسول السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله سيلا آمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu jiitalee kàddu sant suñu borom tabaraka wa taala ci xéewal gi nga xam ni moom la ñu defal ci bëccëgu tey bi te muy xéewalu yenn ci bëccëg boo xam ni bëccëgu alquran la bëccëg boo xam ni liñ fi doon dégg mooy kàddu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp tam di tàmbalee nuyoo bi ci alxalifatul aam bi tariqati muridiya te mooy acheikh sëriñ mbakke di ñaan suñ borom tabaraka wa taala mu yàggal ko ci liggéey bi waaye tam may ko fan ak wér di nuyu mboolem njaboot bi nga xam ni yépp ñoo topp ci ginnaawam di nuyu itam ki nga xam ni mooy sëriñ Jili Mbàkke mii di xalifa Daaru Salaam ñu nekk di ko am njaboot bi yépp waaye di nuyu di beral nuyoo sëriñ Abo Mbàkke moom mi nga xam ni moom lañu dara jaale bisu tey bii muy bisu alquran ñu ngi koy nuyu nuyu bu rafet di ko ziyaara ziyaar bi gën a rafet di rafetlu teewaay bi mu teew tam ci jotaay bi taaral jotaay bi loolu ñu ngi koy am mbégte di ko ci sant bu baax di nuyu sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ni moo doon wax ci turam di ko ziyaara moom itam bu baax a baax nuyu itam maam Cheikh Anta Mbakke mi nga xam ni moo doon wax ci turu xalif général des Mourides nga xamante ni kàddoom la doon waxe ak mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo am ak ñoom ci jotaay bi waaye di nuyu ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk ñu ŋànk sunu wàllu dundin tàmbalee ko ci ki nga xam ni mooy préfet ñi ngi koy nuyu di rafetlu teewaayam ci jotaay bi di nuyu tam monsieur le maire di rafetlu ay kàddoom yi mu fi yëkkati ak teewaayam di nuyu inspecteur bi nga xam ni moo yor njàng mi fii ci département bu Mbacké di rafetlu teewaayam itam di nuyu tam ñi nga xam ni ñoo yor wàllu sécurité bi tey muy commissaire muy commandant nga xam di ci suba ba léegi seen éléments yi ñu ngi fi taxaw di aar barab bi di sécuriser nit ñi yendal lu noppaluñu kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax di sant itam journaliste yi nga xam ni lépp lu fi xew di subaak ñu ngi koy jàllale ba ñu fekkewul jotaay bi sax ñu ngi mën a topp jotaay bi di xam li fi xew ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di sant itam képp koo xam rek teew nga fii ci jotaay bi muy mag di ndaw di góor di jigéen waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy way juru xale yi xale yi nga xam ne ñoo doon jongante toll ci fukk ak juróom seen way jur yi nga xam ne ñoo leen toqantal ci alquran ñoom itam ñu ngi leen di sant ndax bu ñu leen yóbbuuloon ca daara ja lii nu def fii tey duñ ko man kon sant nañu seeni i baay sant seeni i sant sëriñ si nga xam ni def nañu effort bu rëy rëy rëy ku ne xam nga ne alquranul karim mokkal ko def ko ci dënnu xale liggéey bu rëy rëy la laaj kon yéen sëriñ daara yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay yëg nañu li ngeen ci seen ndongo yi ba mokkal loo leen téere borom bi tabaraka wa taala ba xale yi mën toog fii tey di jongante alxuraan ne ci seen dënn loolu yéen ñi ko def ci ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen yiw ci fii ci àdduna ak àllaaxira gënu jëm la nekk ci ko xamal aw xaraf nit wala xamal ko benn aaya yool boobu yàlla bu leen ko yàlla xañ yal na leen ko yàlla borom bi defal di jaajëfal tam xale yi ci seen taxawaay bi nga xam ni am nañ ko tey ci jamante bi nga xam ni nañ ci wane ñi nga xam ni ëllëg ñooy teewal département Mbacké bu ñu àggee ci final régional bi nga xam ni ci fan yu néew nañ ko amal fii ci région bu Diourbel waaye di gërëm itam nday daara yi di leen beral nag ngërëm spécial ku xool nii ñu tooge tey wax dëgg yàlla dañoo taaral jotaay bi dañoo rafetal jotaay bi dañ ko couleur ba foo ko takk ci rafetaay rek wees na ko kon ndey daara yi ci turu soxna astuba mi nga xam ni mooy coordonnatrice bi ñu ngi koy gërëm ci coonaam ci taxawaayam ci bëgg daara waaye ci mobilise ndey daara yi nga xam tey dooni rek région de Diourbel wala département Bambey wala Mbacké man nga ni Sénégal tey ñoo fi teew maanaam jigéeni Sénégal yépp man nga ni ñoo teew tey fu nekk ndey daara yi bàyyi koo nañ fi jël seeni moyens jël seeni alal jël seen lépp indi seen bopp fa seene delloo wax seen bopp wax dëgg yàlla ñun ñi yàlla nattoo ñu ne bopp liggéey bi ak ñi ma ko àndal ak suñuy kilifa ñu ngi leen di sant su doon jot may na ko yàlla xam na ne buñ amoon liste dañ leen di lim yéen ñëpp man ngeen ay junni kenn ko ñu tudd turam ak santam ngir wane suñu mbégte ci seen taxawaay kon nag yàlla na leen yàlla suñu boroom defal tawfiq ngeen delluwaat ak jàmm salaam fi ngeen jóge woon gërëm tam bàyyi daara yi ni ma ko waxe woon léegi waaye di gërëm itam euh, fédération bi nga xam ni sunu baay Alaaji Moustapha Lo yendu feeg ñun moo ko jiite nga xamante ni liggéey bii ñu def ci cinq départements yi wax dëgg yàlla représentant fédération bi ñoo ko ànd ak comité bi kon nag fédération boobu itam ñi ngi wane sunu cant ak ngër teg ko ci loxol président Moustapha Lo mi yendoog ñun mu àggaleel ñu ko ci mbooleem président départemental yëpp ak régional yëpp ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni taxaw nañ ko ci wàllu concours bi waaye di gërëm lool laaj na taxkim bi nga xamante ni ñoom ay soldat de lan xam ngeen ni concours bi du fii rek lañu toog ñoom dañoo def 45 département yi bàyyi seen njaboot bàyyi seen kër dox guddi dox fajar dox ci ak lëndëm dox ci ay risque ngir rek dem saytu xale yi ci département yi kon lañ na taxkim bi te mooy jury bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci turu a Cheikh Mahmoud Hassan Bousso mi nga xam ne moo ko jiite di leen tàggat di leen amalal ay séminaire pour yokk seen mustawa ci liggéey bi kon lañ na tahkim bi yëg leen ni seen taxawaay yépp rafetlu nañ ko ni ngeen ko defe ci 45 département yépp waaye itam di gërëm bu baax a baax comité bi nga xam ni ñoom lañu àndal liggéey bi ni ma ko waxee woon rek ci tijji tega ñun la yàlla nattoo ñu ne ci bopp liggéey bi waaye liggéey bi yéen comité bi yéen a ko yor ñun du sunu xam-xam du sunu sunuy at waaye liggéey bi su agsee fii tey gannaaw yàlla comité bi yéen taxaw taxawaay bu rafet taxawaay bu mucc ay amu leen guddi amu leen bëccëg yendalu leen noppaluwu leen saa bu nekk fu ñu leen soxlaa taxaw ngeen fu ñu gestu gis leen loolu day day day may confiance ku jiite ab liggéey ndax taxawaay boobu la comité bi taxaw ñoom ñëpp nag bàyyiwuma ci kenn ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay boobu di sant itam ki nga xam ni mooy sunu kilifa ci liggéey bi a Cheikh Abdoulahi Dia ndax moom la yàlla defal tawfiq ni ko yàlla wërsëgal mu cay jël di ko delloo ci alquran ndax ni ko monsieur le maire waxe du moom la fi yàlla def mu ëpp fi alal waaye moom yàlla toj na xolam ba li mu am nangu na cee jël delloo ci alquran te bu defuloon concours bi tam kenn ko ci yedd ndax tey fii ci daaru salaam am na fi daara joo xamante ne seen daara maam la ñu fay mokkal loo ay xale lu ëpp ñeenti téeméeri ndonga nekk fa kon concours bi su ko defuloon sax ngàcce gaalaama ndax mi ngi sonn ci alxuraan te concours bi taxut kon bu dee wa boole ci concours bi di ci def ay million te du bëgg ku wax budget bi budget bi nanguwul ku ko wax ndax concours bi amul budget su ma nee amul budget mooy lu mu laaj da ko ciy def lu mu laaj rek da ko ciy def kon ku mel noonu Cheikh Abdoulahi Dia ñun ñëpp nañ ko ñaan yàlla suñu borom yàlla gën koo sàmm aar ko guddal fanam àggale yéeneen ci alquran ku mat a ñaanal la ku mat di bàyyi xel la ci suñuy ñaan suñuy guddi suñuy bëccëg suñuy sujjoot dañ koy ñaanal yàlla aar ko bu fii mu bëgg a àgg ci alquran yàlla àggale ko fa àggale fa mbooleem këru liggéeykaay yëm yëpp waaye tam defal ko magam ji nga xam ni réeroowut ak moom ci concours bi muy ki nga xamante ni mooy Cheikh Moustapha Dia lépp lu muy def rek nga xam ñoom ñaar réeroowuñu ci kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye di gërëm bu baax a baax sunu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk fii ci biir région de Diourbel te concours bi ñoom ñoo ko ŋànk muy a Cheikh Serigne Mamoun Mbacké ak Seex Sëriñ Bachiru Saaxo ñoom ñoo nekk ci bopp liggéey bi ren ñu am ci taxawaay bu rafet taxawaay bu ràññeeku liñ ci def lépp ñun yëg nañ ko comité bi tam yëg na ko woote nañu ay réunion yu baree baree bari daje dajale ab laaj na tax team spécial ci département Mbacké def ko ay concours ci ay zone saytu xale yi di leen tànn ba agsi fii tey kon itam ñooñu amee nañ leen ngërëm amee nañ leen cant Cheikh Mamoun Mbacké ak Serigne Bassirou Sakho ak équipe bi ànd ak ñoom jàppale leen bàyyi seen lépp ba mbir mi agsi fii ñoom itam gërëm nañ leen bu baax a baax turu bi sant leen tam bu baax a baax ci turu comité bi waaye tam di beral mention spéciale sunu jigéen soxna maam Anta Dia nga xamante ni mooy magu Serigne Abdoulahi Dia xam ngeen ni ba mbir mi commencé ba léegi amul yendal amul fanaan amul bëccëg taxaw na taxawaay bu rafet li ngeen fi gis depuis démb lépp ci ay teraanga lu ñuy lekk ak lu ñuy naan lépp yàlla def na moo ko doon waajal kon def na liggéey bu rafet bu mucc ayib ñu ngi koy sant moom maam Anta ja di ko gërëm di sant borom këram bi nga xam ne tam moo ne ci wetam di ko jàppale ak njaboot bi nga xamante ni ñëpp ne nañ ko ci liggéey bi su ko defee lañuy ñuy daanele rek mooy lu jëm tuuti rek ci wàllu concours alquran bi xam ngeen ni tijjite gi ñu ngi ko defoon la 14 décembre bii passé fële ci Tiwaawan tudde woon ko Serigne Maodo mu El Hadj euh, Abdoul Aziz moom lañ ko dara jaale woon la 14 decembre bii passé 2019 ci Tiwaawan ñu tëjee ko fii tey ci Daaru Salaam dara jaale ko Serigne Abo Mbakke waaye ñun ñépp de bég nañu nañ ko tàmbalee woon ci bismillahi rahmaani rahim tey jii wax nañu alhamdulillahi rabbil alamin ndax tëjte gi rafet na lool foo ko takk ci taar àgg na fa dañuy ñaan yàlla tabaraka wa taala nag mu dimbalinu ba ñu àgg ci dimanche la 3 mai 2020 yéen ñi teew fii ñëpp date boobu na ngeen ko noté date boobu na ko ñëpp noté dimanche la 3 mai 2020 fële ci dakaar ci Grand Théâtre mooy nekk nag événement bu mag bi boobu bëgguñu kenn wuute ko ku yëpp ku yàlla may kattanu teew ak wér na nga ñëw fekke si bis booba ñu sargalanteeg suñu njaboot yi sargalanteeg ñu ab laaje mi nga xam ni kenn ko ne ñun amel na ko àq wuyu su ko su wootee kon bis boobu bëgg nañu waa Daaru Salaam waa Mbàkke kenn bañ a des ñu fekke si loolu ren nag am na coppite gu ndaw rek bu am xam naa ci lay daan àllaaji maa ngi jéggulu mooy xam ngeen ni concours bi ren prix bi dafa changé maanaam lam daan am dañ ko ko yokkal ki jël ren danañ ko jox ñaar fukki million ak billet Makka maanaam bu ñëwee Grand Théâtre ka fay jël pee la 3 mai dina am ñaar fukki million ak billet ma ñaar fukki million yi xale bi moo moom fukki million yi ak juróom benn xale bi moo fukki million yi ak juróom benn sëriñ bi ko jàngal moo ñeenti millions yi ak billet Makka bi loolu moo am ren ci coppite deuxième bi dana am fukki million ak juróom deuxième bi dana am fukki million ak juróom ak billet Màkka xale bi moo moom quatre-vingt pour cent yi sëriñ bi moo moom vingt pour cent yi ak billet Màkka bi troisième bi ren ko jox dix millions troisième bi ren dina am million millions quatrième bi ren dina am huit million cinquième bi dina am six millions kon lii tey mooy xaar xale yi ku ko mën a gañe nag Sénégal moo gañe muy Diourbel muy Dakar muy Thiès muy Louga ku ko mën a gañe Sénégal moo gañe kon nañ ñëpp waajal bis boobu waajal xale yi ndax loolu mu ngi leen di xaar ci ay teraanga yoo xamante ni moo nekk ci seen kanam kon ñu ngi jéggulu ñëpp di sant ñëpp waaw ñii dem finaan képp ku bokk rek ñëw Dakar képp ku bokk rek boo génnee cinq premières yi sixième bi ba quarante cinquième bi kenn ku nekk dina am luñ jox cinquième sixième ba quarante cinquième amul kuy ñibbi ak loxoy neen kenn ku nekk dana am loo xam ni danañ na ko jox mu nekk ndàmpaay loo xamante ni concours bi moo la ko defal te nag concours bi yamul rek ci li muy def ci concours bi xam ngeen ni am na commission sociale ci biir concours bi di jàppale way néew doole yi ñi feebar di jàppale yenn daara yi pour suqali leen di jàppale tam ñi nga xam ne xaj na ay way laago lañu kon loolu lépp concours bi mi ngi koy joué kon tekkiwul ne xale yi dong la ñuy primé mais ñi ngi def yeneen act yoo xam ne tam nit ñi tam war nañ koo xam loolu lépp nag ci génn jëmm la bàyyi ko muy sëriñ Abdoulahi Dia kon ñu gën ko ñaanal yàlla yàlla gën koo yokk yàlla gën koo taxawu concours bu juróom lañu tey kërub alxuraan am nañ kërub alxuraan gu nekk Dakar lii génne grand théâtre amul luy delluwaat ci Sénico lépp ci kër googu la jëm kër yu commencé nañ ko tabax yaakaar naa bu ngeen ñëwee dimanche la 3 mai 2020 grand théâtre danañ leen wan kër gi fan la toll liggéey bi commencé na bu nu yàlla dimbalee ba la yàgg kër googu dina pare nga xam alxuraan moo ko moom jullit ñëpp ñoo ko moom ku ne am nga fa ab cër kon nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala àggalañ ci ba kër googu ñun ñëpp ñu man koo daloo ñu bokk tam fekke ko kon daal li ñuy jeexale mooy wax sant yàlla bu baax a baax a baax waaw ñu ni li ma wax ci 20 millions bi maanaam ki nga xam ni mooy sëriñ daara bi nga xamante ni moo jàngal xale bi euh, vingt million yi ci daara jël a jëm maanaam bu ñu nee daara bi mooy sëriñ daara bi mooy mooy 4 yi bokk bu ne daara ji mooy sëriñ daara bi moom moom moom 4 yi moom daara ji biir màkk bi tam sëriñ daara bi moo ko moom maanaam lépp daal génnul li nga xamante ni mooy daara ji alaaj dafa am benn sew sew bu ndaw rek nga baal ma dafa am lu amoon ci concours bi ta ren amatu ci nañ ko yóbbaale bu njëkk defee final départemental ba pare def final régional dañ naan trois yi jiitu ci région bi ñooy ñëw Dakar loolu amul ren dañ naan région de Diourbel trois fa jiitu ñooy ñëw Dakar Thiès turwaayu jiitu ñooy ñëw dakaar loolu dañ koo dindi bu ñu defee finance régionale yi ba pare def 14 régions yi dañuy teg résultat yëpp xool 45 meilleurs yi jiitu ñoom ñooy ñëw Dakar ren kon loolu nañ ko bàyyi xel kon di nga ci gis région bu bari ay candidats waaye man ngaa gis région boo xam du am candidat kon bu ñu defee finale bi yëpp national régional régional yi dañuy teg 14 listes yëpp xool 45 yi jiitu ak région bu mën ñu ren ñoo ñëw final national ci koor gi kon loolu na ko sëriñ daara yi bàyyi waale xel nañ ko yóbbaale mbokk yi maa ngi jéggulu ci kàddu gi ëppal naa minute yi ñu ma joxoon waaye nag li ñu waroon a leeral dafa war a leer ci jotaay bi ñi ngi am ñi ngi ñaan yàlla incha allah la 5 février bi la ñuy commencé final régional yi la 5 février 2020 di ko tàmbalee Louga di ko jeexal la 15 mars 2020 di ko jeexale Kaolack di invité ñëpp di woo ñëpp dimanche 3 mai 2020 grand théâtre boo kenn manqué yàlla nañ ci yàlla àggale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba mu demee daal rek bu fekk fa seen soxna su nekk ci benn xalqa di jàngale alquran boot doom mu ne jëndale naa donga yi jëndale naa soxna si jàngale waaye doom ji ñu ci jawwi alquran ji nekk nee na moom moom laa ñee ñee ñee ba sama rongoñ tuuru kooku ku bëgg alquran nee na may diw tudd ma aw tur wu ñu xam saa bu ñu dajee jataay na ma koy joxe ab cër ak na ma koy joxe wàccuwaay dana yaakaar dafa du xam lan la yoon lan moo waral lool ca dara a ko lu may xam gu ma xam ab liggéeyam ci alquran moo tax ñi ngi sant bu baax Serigne Cheikh Bara Abdoul Ahad ñi ngi ci jataay bi nekk koo xam ne moom fu ba concours bi tàmbalee ba nëgëni saa bu ñu geesoo gis ko fu ñu nekk rek mu nekk fa ànd fa ak ñun ñu ngi ko sant baax taxawaay di ko gërëm. mu mel ni kii na ñu ngi fedd ndiwaat seen cant ci mboole ñu jàppal liggéey bi li ko dale ci soxna Maam Anta mi nga xam ne ñëpp luñ ko sant nee nañ ko sante ndax taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci mbiram la waaye nag defu bëggam ak ngëmam la koy defee li muy def ak bëggu boppam la ak ngëmam boo xam ne xam nañ ne bu ko keneen taxawee woon pour sëñ Abdoulaye taxawaay bi dana ko ci def ndax dafa bëgg alxuraan ñoom seere leen ñu ngi seere bu baax ne xale yi ne ngeen fi gis muy association ñi fi nekk ak mbootaayu jigéen ñi ci dëkk bi ñëpp seen taxawaay rafet na ñu dëkk ci dëkk bi daal ba ñu tàmbalee yëpp concours ne fii la ñuy defee final bi ak léegi bi ak léegi seen taxawaay rafet na lool kon sëriñ Mamoud ak sëriñ Bachir Sakho ak ñi ñu àndal ñu ngi seereen mbooloo mi fi ay ay kan ñëpp ne seen dëkkandoo yi seen taxawaay rafet na lool ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi loolu dañu ko jot li woon kon ñuy wéyal kàddu bi kon muy kàddu bu mujj gi mu jëm ci préfet ci ki nga xam ne moo teew di adjoint préfet ah, Ahmad Tidiane Ndiaye moom la ñu jox kàddu gi bu tëjee nag bu ko defee ñu daal di joxe résultat yi incha allahu taala ki nga xam ne moom moo jël première daal di jàng alquran te ko jotaay bi kilifa jotaay bi ñaan ñu yeewi ko ba beneen yoon incha allah Ahmad Tidiane bismillah Monsieur le représentant du Khalif général de Mouride, Monsieur Serey Abou Mbaké, Monsieur le maire de la commune de Mbaké, Monsieur le, le président de Sénéco, chers parents, chers invités à vos titres et qualités, chers parents d'élèves, chers élèves, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous au nom du sous-préfet, au nom du préfet de la délégation qui m'accompagne à mon personnel pour assister et magnifier la journée de cérémonie de clôture des concours départementaux de Sudal du Coran organisés par Sénégal. À cet effet, permettez-moi de remercier et de féliciter les initiateurs de cette noble idée et les généraux de donateurs, parmi particulièrement le président directeur général de Sénéco, M. Seraï Abdullahi Dia, ainsi que le parrain de la journée. Pour les actions de haute portée humanitaire et sociale qui viennent de porter, qui viennent de poser à l'endroit des élèves des écoles et des dards. Ces remerciements vont également à tous ceux ou à celles qui ont bien voulu contribuer à l'organisation et à la réussite de l'événement. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui, ici à Darussalam, au-delà de son caractère festif et créatif, revêt une signification à la fois symbolique et pédagogique, car il s'agit à travers ce concours de primer les meilleurs élèves qui se sont bien distingués, mais également de susciter l'émulation chez les autres afin qu'ils puissent redoubler d'efforts et mieux travailler pour se épargner l'excellence. Votre action, Monsieur le Président, s'inscrit également Euh, en étroite ligne avec la politique socio-éducative prônée par le gouvernement du Sénégal, soucieux de la promotion des ressources humaines de qualité et du rayonnement des valeurs religieuses. Ce qui ceci explique d'ailleurs les nombreux sacrifices et efforts consentis par l'État dans le domaine de l'éducation et de la formation des jeunes, mais aussi dans la modernisation des DARA. Car il constitue la force de relève de demain l'espoir et l'avenir de la nation. C'est dire qu'il n'y a pas meilleur investissement que celui consacré à l'éducation et à la formation des jeunes. Avant de terminer, je réitère mes remerciements au président de Sénéco et à l'ensemble de son personnel et invite à nous tous à s'inspirer de cet bel exemple car le développement du pays nous est comme tous et pour sa construction sacrée, il doit apporter sa pierre dans l'édifice. Je vous remercie asalaamaaleykum mbokk mi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tuur ak sa sant di ci jiital euh, le xalif général de Mouride di ko ñaanal yàlla vraiment guddal sa fan bu yàggal suñu kanam di sant aussi di ña di ñaanal aussi Serigne Abou Mbacké yàlla yi guddal fanam mu yàgg mu suñu kanam di ziare di aussi autorité religieuse ak yi fi nekk di leen ñaan yàlla guddal seen fan. ndax seen taxawaay ci ci réew mi dañ ko soxla ndax suñu demee tey bu fu mu nekk nii dal ak jàmm am fii ci Sénégal seen taxawaay yu rafet moo ko waral ndax su ngeen déggee bés bu nekk yoo xam ne moo ci réew bi ñu wér nii bés bu nekk ndégg ndégg foofu yoo xam ne ay musiba mais fii yàlla su passé vraiment jàmm rek moo fi am kon nag ñu ngi leen ñaanatoo su ngi gën a yokk vraiment ñaan bi ci réew bi euh, maa ngi am tam aussi mbégte ñëw fii fekkee ci bés bi bés bu tedd bii ndax bés dana gën a ko tedd bis boo xam ne moom dañuy jàng alxuraan dañuy yoote ne màggal bi tam aussi di ñaan tam aussi vraiment moom kii waral bi yoo xam ne bés bi tey yàlla vraiment y dafa dëgëral yàlla vraiment na ko jàppale gën a yaatu wërsëg bi ba fu mu nekk bi yëpp mu ñëw ci ay ndaw ci Sénégal fu mu nekk nii te mu tam aussi li mu def nii tam aussi war na constituer un exemple yoo xam ne ni royukaay war na nekk royukaay yoo xam ne ci yeneen yoo xam ne moroom mu fi nekk ndax monsieur le yàlla mooy na leen teranga te yoo xam ne li mu def ñu jëfandikoo kon nag lii ñuy def war na nekk un exemple pour ñun ñëpp yoo xam ne ñu pour yoo xam ne au moins ñu taxaw ci askan bi taxaw aussi ci réew bi ndax réew ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku nekk fi nga nekk tam aussi war nga dugal ci loxo pour réew bi yoo xam ne mën a avancé kon nag ñu ngi ko ñaanal yoo xam ne di ñaan tam aussi yenn yoo xam vraiment mu sàmm leen vraiment mu aar leen aussi mu gën a yaatu leen aussi vers ce qui réew bi wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yi mu gën kàddu yoo xam ne yi ma bëggoon def jotal leen ci au nom des autorités administratives